asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk ba tey maa ngi sa njàngale mi li nga xam ne moom ngay wax ci biir julli pour rek nga am julli goo xam ne ni julli gi borom bi na ko gërëm lool ndax dal gi may am ak ñaan yi nga xam ne yaa ngi koy ñaan ci biir aja ñu dem léegi ma jàngal la boo tegee sa jë ci suuf ndax wax nañ ne jullit bi bu dee julli bu tegee jéem ci suuf foofu lay gën a jegee borom bi nga xam ne foofu loo ñaan yàlla rek yàlla da koy nangu mooy fi nga tegee sa jë ci suuf kon loo mën a ñaan ñaan ko boo ko mënee ci arab moom moo gën bu dee ci olof nga ko mën nga ñaan ko ci sam xel kon léegi lan ngay wax boo tegee sa jë ci suuf ngay wax subhaana rabbiyal aala wa bi xamdihi subhaana rabbiyal aala wa bi xamdihi nga tegaat ca subhaanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ixfirli nga tegaat ca subbooxun xuddoosun rabbul malaikatu war ruuxu subbooxun xuddoosun rabbul malaikatu war ruuxu bul ne dafa bari bul ne mënuma koo man ndax yaa ngi man loo xam ne ni lii moo ko gën a gàtt te nañ ca def sam xel ak lañ ca daj moo tax kon boo ko defee sa diggante ak sa borom sa borom na la jàppale te di ngay julli julli gu mucc ayib soo ñaaneeloo pare na leen loo mën a ñaan ci sam xel ñaan ko foofa ndax yàlla nee na jaam bi de fi mu may gën a jegee mooy bu tegee jéem ci suuf kon am na ñoo xam ne buñ tegee seen jë ci suuf boo leen di xoox da nga naa ñi dañuy foof fekk déedéet dañuy déyaale ak seen borom kon bul yàkkamti boo tegee sa jë ci suuf ci suuf waxal subhaan rabbiyal aala wa bi xamdihi ñetti yoon nga teg ca subhaanaka allahumma rabbana wa bi xamdika allahumma ixfir lii subooxun xuddoosun rabbul malaaikatu war ruuxu sa mbokk taari maam Lamp Njaay la léegi su ko defee nga yaatal audio bi yi ma lay yónnee soo ko dee yaatal de bëgg yaa ko xam ci sax xel ci sam ci sab xol yàlla na la ko yàlla def barke sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom la yàlla joxoon julli mu wàcce ko ci aw xeetam